li ñuy wax aussi Sénégal toll na niveau de démocratie bu mu war a yegg boo xam ne am na yoo xam ne waratu fi am liberté de la presse kenn waru ko laam-laame man je pense que euh, parce que quand yeneen état africain yi boo xoolee ñu ngi avancé ba ñu ngi ñuy dab bu yàggee raw ñu parce Sénégal ah, dafa mës a jiitu ñëpp si côté démocratie exemple Afrique démocratie Sénégal la wax donc alternance yu normal yoo fi am et cetera démocratie euh, n'est anarchie donc loolu tamit euh, lu jara sóoraale la mais it ak déontologie mooy seen seen i référence donc il faut que tamit journaliste yi xam ne ko loolu war nañ ko téye mais en dehors de loolu liberté Sénégal presse au Sénégal dafa libre donc euh, avant parce que sinon le problème qui va se poser mooy dangay ngay am presse d'État boo xam ne moo fi nekk pour gérer un peu les éléments et opposition yi ñoom mosuñu am accès ci presse boobu donc tey le fait ñu am diversité de radio de télévision de site et loolu yëpp man pour man vitalité wu démocratique Sénégal la donc il faut que ñu maintenir ko il faut que ñu préserver ko continuer ko pour que sénégalais foo mënti nekk ci àdduna nga mën di xam ne que sama réew lii moo fi am lii moo fi am nga koy dégg par exemple revue de presse bi ñuy wax aussi la def revue de presse bi en wolof dafa am solo parce que ñëpp jànguñu une bon partie et que tey bu ñu koy def liñ mën na fexe nit ñi lan lañ leen di wax lan moo xew si sa réew ñu paree foofu lañ koy déggee parce que aussi il faut ñu xam li xew si biir réew mi sur le terrain parce que am na débat intellectuel yu mag yi ñu bare duñ ko suivre donc soo gisee tey sénégalais sujet bu ne am na si lu mu si xam c'est parce que tey manière bi ñuy defee peut-être revue de boobu moo koy neex ba mu koy déglu bu koy déglu tamit dina ci jottaale ay information xam ne sama réew kat lii li lii am na fi donc yooyu yëpp dafa am solo et je pense qu'il faut élargir